moom i li ko rey gëm sa bopp bi nga xamee ne ñu ngi ci campagne bi bugaan dafa ëmbal benn xale bu ndaw biir gëm sa bopp. ah bon day nelaw ndax dama koy faj. yow da ngay faj cancer. damay faj cancer. d'accord day nelaw ci yaram naqar da koy yee moom i mënoon naa dundaat waaye bugaan a ko rey. yéen a baal àq yéen bi nag ma ci jiital waa gëm sa bopp di ci jiital. Bougane Gueye Dany di ko ak, àq ndax xale bi nga xam moma jël may wax dafa supprimer samay wax dafa changer samay wax dafa mom montage vidéo wallahi billahi tallahi sama vidéo da koo ak yalla su sama njaboot daf ko dag defal may montage kon nak maa ngi jéggalu groupe gëm sa bop yépp leen di djeglu ci kaddu yi ma wax maa ngi jéggalu Bougane ci kaddu yi wax ndax dafa am sama wajur yu jigen rakkam bu bokal ndey ak baay mu dekk Touba bok sama yaay bok ndey ak baay wax ma ci bugan lo xamne lu daw yaram la manako li defumako dañ ma dag te dina ba guddi munta sama rap yaay bu bët set ndax am lu ko nakari manako tante li montage la te du tiktok la wara dugg te montage la site internet la te daf ma monter dama wax mu jël wax di changer ko wulbeutiko lamu duggal moom moom ma ko doon répéteel xale bu jigéen bi ma ko doon wax waaye nag maa ngi jéggalu waa gëm sa bopp di jéggalu Bougane li ko commencé group yëpp yi nekk Dakar Fouta Casamance Kolda Tamba ñoom ñëpp maa ngi leen di jéggalu waa Fouta gëm sa bopp yi sax sama xarit la ñoom ñëpp ngi may woo maa ngi jéggalu bu baax asalaamaaleykum